معنى با ثلاث حالات ñetti xaal aydan ba tey ismu tafdil ci wàllu maana am na ñetti xaal maanaam lu muy firi alwulaa bu njëkk bi maa taqadama mooy la jiitu na sharxu leeral ko mooy ñoom ñaar ñëpp melokaan bi mu ngi ci ñoom waaye ci kenn ki la gën a fés loolu ci maanaam mi la bokk woowu moom addalaalatu mooy tegtal xalaa an na chey ani na ñaari mbir istaraka bokkaate nañ fii sifatin ci ab melo wazaada yokku na ahaduma kenn ci ñoom ñaar alal oxra alal axari ci keneen ki fii haa ca melo woowu ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk melo yi waaye kenn kaa ko ismu tafdil dana am fulaan akramu min fulaan ñoom ñaar ñëpp am nañ alkaram teraanga waaye kenn ki moo gën a tedd loolu ci maanaam mi la bokk waaye tekkul ne foo dégg lu mel noonu rek ci maanaam mi la bokk ndax léeg-léeg di gis ñu ñu tëkkale ku baax ak ku bon mm-hmm. Muhammad Abdalu min nangam seet ko koo xam ne tekku dara mm-hmm. mais Muhammad Abdalu minhu mm-hmm. kooku Muhammad ko gën foofu luñ ci namu ñoom ñaar ñëpp ñoo am ngëneel mukk laa dina yooyu bu ngeen yàggee xool day léeg-léeg ngeen gis ko su fekkee maanaa bi rek ngeen ci xam dana leen jaaxal mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. comme comme àddina àllaaxira rek fii am dara benn ngeen nekkul fii mm-hmm. ñu tëkkale leen xa fekk dañoo bokkul sa dañoo safaanoo moo tax ñu takk leen mm-hmm. asaani ñettu ñaareel bu melo ba añu raadu moo ñu namm bii ci moom mm-hmm. an na chey an na mbir mm-hmm. zaada yokk na fii sifatu nafsi ci melo boppam ala chey ci kaw mbir aaxara beneen fii sifati yi ci melo boppam falaa yakunu nekkul bayrumaa seen diggante wasfun melaw mushtarak bu bokkaate maanaam kii mborom nga lam ci am kii lam am ci mbaaxam nga moo ëpp kii tey mbaaxam nga kii mbonam gi tey boo doon peese ay kilo ci mbon gi si misaal mhm. ñetti kilo mbon la yore waaye kii moom juróom benn kilo mbaax la yore mhm. bokkaatuwuñ melo de mhm. waaye dañoo bëggoon a diw moom melo bu baax mi lañ ci am mu ëpp foofu sax diw melo mu bon moom lañ ci am comme ñu ne ka xawlim ni gisee ne wax al asalu lem axlaa moo gën a neex meneen xalli ci beneegar maanaam lem lem yore ci neexaay beneegar yorewu ko ci weexaay wa sayfu noor axarru moo gën a tàng mu ne chitaa yi si nawet noor tàngaay dëgër tàngaay ba mu yore nawet yorewut dëgër seddaay boobu maa xam ngeen li ma bëgg wax fii tekkuwut nga leen hmm? dégg nga wal maanaa lay maanaa ba an al asal naka lem zaidun aji yokk la fi xalaawati ci neexam alal xalli ci beneegat fi xumuudati ci foroxam lem lam am ci neexaay beneegar amul lu toll noonu ci foroxaay wa sayfu noor zaidun aji yokku la fii xar yi ci tàngooram ala si nawet fi bardi ci seddam noor lam amee ci tàngaay nawet amul ko ci seddaay loolu maan ismu tafdil da koy niru dégg leen gënale ñoom ñaar su ko defee rek ka nga bëgg a gënale moom nga tudd melom moom nga tudd meloom waaye keneen ko moom ñëpp dañuy xam meloom wane nag meloom ba lam ciy bon bon bon ki am na lu ko gën a baax lu ko gën a foor ci safaanam meloom asaalitu ñaaree ba añu raada moo ñu na mu bii ci moom asaalisatu ñetteel boo kay asaalisatu ñetteel ba añu raada moo ñu na ci moom subuutal was sax ak melo li maxallihi ca barabam min xeeri nazarin ci lu xool ilaa tafdili yaa tafdili ci ngëneel ngënale léeg-léeg ñu bëgg wax ne melo waa ngi fa rek waaye namuñ si wax ngënale ka ni gisee ne wa annaaqisu aji wàññi ja wala ashajju ak aji xaañu ja ahdala bani marwa marwaan liñ ci na moom mooy ñoom ñaar rek ñoom màndu ci doom banu marwaan ñoom ñaar rek màndu dama bëgg saxal melo màndu ci ñaar ñooñu mais tekku ci ne ñoom ñaar ñoo gën a màndu am na ñeneen ñu ñoom ñaar kese ñoo fa màndu loolu mooy saxal melo yi xam nga bu saxal ko ci barab kese loolu la ci nam al achaj mooy Omar ibn Abdul Aziz dafa xaañoo dafa amoon xaañ-xaañ ci boppam dégg nga bun Walid mooy an naaqis moom bam yore xilaafa gi daf ne dafay topp ndoor Omar ibn Abdul Aziz xam nga gaa yi kuy xilaafa moom boo ko yoree wala nga yore kii armée bi la war a garder loo man ci alal danga ko fay def pour sa sécurité mën a baax moom mu wàññi seen fay lañ la doon jox daf koo wàññi dugal ko ci nit ñi ngir roy Omar ibn Abdul Aziz maanaam wane moom boo xam ñoru ko dégg nga tuddee ko annaaqis لنقص naq الجندي arzaq al jundi nee na ñoom ñaar ñoo bokk si ba ñoo mandu ci banu marwan ay huma ñoom ñaar kese al aadilaa na ñooñu mandu wala adla den mandu fii xeyrihima ci kudul ñoom ñaar fulaan wa fulaan akrama bani nangam moo ñoom ñaari mooy saxal melo yi ci ñaar ñi kese kon ismu tafdil am na ñetti maanaa yooyu ñaar ñëpp ñoo bokk melo yi waaye kenn kaa ci ëppale kii melo bon wam yore wala melo safaan wam yore lam ci am kee yore na ci safaanam lu ko ëpp maanaam loo indi ci mbon rek fekk fi lu ko ëpp ci baax loo indi ci lëntal fekk fi lu ko ëpp ci leeral maanaam melo nga yore kii indi safaan ba yor na safaa bu dul googu ñetteel bi mooy bëgg a wax ne ka ngay gënalee affaire bi ci moom la yem la koy gënalee ci moom la yem hmm? waaye ki ñeneen ñi dara daal fulaan ahdalu naas léeg-léeg ñu wax fekk ne yom léegi de nit ñi kii rekk si màndu kii defee maanaa boobu nag seexatul kalaam bi walla yow mi wax yaay xam loo si jublu ba fi haajil xaala ci biir malakaan tajibu dana war al mutaabaqatu dëppoo maanaam su fekkee dangaa bëgg a saxal melo wi cekk ngay gënale waaye nam moo ci ne dafa gën nanga nga waaye melo wi moom rek moo ko yore foofu foofu mu taabaxa am hmm? maanaam foofu da ngay gënale bu dee ñaar ismu tafsir bi di ñaar bu dee jamu ismu tafsir bi di jamu hmm. mu taabaxa foofu day am foofu ci masala mi dégg وعلى هذا تلي يخرج تلي جن قول أبي نواس من كأن صغرى وكبرى من فقاقعها أصباء ذر على أرض من الذهب كأن الصغرى دفع ملي أجن دو وكبرى أجن مك دينا min faqaaqiha ci ay xeeram hmm. asbaa u durrin ay xeeri wurusu dur la hmm. ala ci suuf min zahabin ci wurus hmm. xeer yu ndaw yi ak yu mag yi lay nuruleeg xeer yoo xam ne ni mel ni wurusu dur yu nekk ci suuf ak wurus ka ànd soxraa ci ki gën a ndaw déedéet ka ànd wa kabiratan ñoom ñaar yu ndaw yeeg yu mag yi kese melo yi ci ñaar yooyu lay ay sax yoratan bi ndaw wa kabiratan ak bu mag loolu la ci loolu ci nam foofu moo tax ko dégg hmm. waaye bu dutoon loolu dafa waroon def kaan na asxar hmm. wa akbar min nangam parce que ismu tafdil boo xam ne laafut hmm? Eh, dara te amut al لفنيكم مفرد مذكر نعم، مدافكم مؤنث باسكو لم تينا موم موي سخال ملوي سي لو نداوري اك لو ماغلي كسه يو نداوي يو ماغي كسه خير نداوي يو ماغي لين وذلك قول كقول عرودين كم وخي ني عرود فاصلة صغرى وفاصلة كبرى تي عرود امنا ني تودي فاصلة صغرى اك فاصلة كبرى دينا فاصلة صغرى دي ني واخني boobu moom rek la ñuy tuddee faasatu suxra beneen bi la ñuy tuddee faasatu kubra dégg euh, loolu am na ci ci ci ci endof dégg wa bi zalik ci loolu yéen dafu ci lay dañoo alqawlu wax bi laxni abi nuwaas si yàqu abu nuwaasul béyti ci béyti bi mm. am ñu abu nuwaas dafa yàq kaan asxar wa akbar la waroon wax waaye nag fii daf cee nam mu saxal melo yi ci ñu ndaw ñi mhm. ak yu mag yi faasilatun suxra na muñ ci asxar ak yooyu dañoo bëgg wax ne mel benn melokaan bi lañ tuddee fasilatu suxra beneen bi ñu tuddee fasilatu kubra mhm. hmm? dégg mhm. ba la dun loolu fasilatu lañ ko tuddee ci ci en route loolu ñu ñaaruta ko xam boo xoolee dafa am sababu saqil ak sababu xafiif bara sababu saqil la dun sababu xafiif la loolu faasilatu suxraa ñaari sababu ñoo si dugg euh, moo su fekkee sukkoon nga si ñeenteel ba sama ka tun ba mooy faasilatu kubra dafa am sababu saqil ak watar majmoo sama tun loolu ñooñu arab ko xam mais foofu dañoo bëggoon facile bii rek moom lañ tudd moom rek mooy bu ndaw bii rek mooy bu mag bi ñoo jóge wasfu bi def ci rek lañ tënk ci loolu waaye nag muñ ci ismu taf moo tax foofu foofu day dëppoo day am allahuma lu mooy ila ila isa alima lu mooy ñu xam ana muraado ne nañ na taf diru mooy gëneel mm. su fekkee gëneel la ci amu nuwaas nam mm. baaxu keddu wakka ana soxra wa kubra min nangam Mm. foofu boo am àll lañ koy def ah yaa ngi xam nga mm-hmm. fa yuqaal ni wax isaaka jamono boobu bi laa xam ne abu nuwaas dafa yàq tax mm-hmm. arab arab yi mag yi dañ koy yàq ndax kenn muccut ci mm-hmm. langue moom maa léegal leen amul kenn ku mucc ci mettal ko langue langue bu fekkoon lu ñëpp war a xam ne yonent bi dafay mokkal langue yëpp hmm? am na langue yoo xam ne dañuy wax ne yonent bi déggu pour yaakaar naa booy xool ci jawaahirul iklim moom dafa war na yonent bi dégg na langue yëpp moom loolu la wax mën naa nekk lii daf na yonentu ba muy wax ci wàllu julli allahu akbar mu ne am na ñu ne boo ko mënut da koy wax sa langue mu ne yonentu mosu koo wax ci beneen langue ànd ak ne moom dégg na langue yëpp waaw boo xoolee ci alquran day mel ne yonent day gën a làng yëpp wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi ku ñu yónni rek sa làmm yu nit nit bi ci arab yi lañ ko yónni wala ci ñëpp lu tax yi ñu ngi ko yónni foofu day mel ni <laughs> day gën a yëpp mais gisuñ mu wax yeneen làng yi loolu wala na ne déggut yooyu mën na ko dégg bañ koo wax mën na ko bañ a dégg allah alam Hmm? dégg mais langue daal amul problème xam langue moo gën a kii wax ko ni boo koy wax mën nga ci def erreur teewul xam nga ko rek nit dana xam langue xam xawaay gi mm-hmm. bu teeyee bind ci dana rafet mm-hmm. mais bu waxee dafay am léeg mu am njumte kenn muccut ci mm-hmm. allahuma lu mooy illa isa buñ xamee ana muraad wala leen moo tafdir mooy gënale ويقال لهم إذا كلمة رب الأحمد فيقوم فيقوم أبو نواس لأنه نحن كان نكون يلزم ديكور الإفراد ويتل وتذكير أقول لعدم التعريف جنياك معرفة وإضافة جنياك لاف جنياك إلى معرفة معرفة أمر ال لا في المعرفة لتخ ندفكو تس متابقة يفور نك مفرد مذكركم نكو جانجو تنبيه عن اللي يعني يترى al awal bu njëkk bi mislu ismu tafdil comme ismu tafdil la fii shuruti yi si ay sartaam fi àndu taajub ismu pare nañ ci bu mujj nag xam ne ne toujours day am mutaabaqa mooy boo bëggee jël melo bi tënk ko ci la ngay toujours day am mutaabaqa jàpp leen boobu dine amut laafut amut al laafut mu ne comme ismu fii shuruti yi si njàngoon yëpp fi àndu taajub kon dellu leen sart yi ngeen jàngoon mm-hmm. feelu taajub ak ismu tafdil ñoo bokk ay sart alladi gi nga xam moom infiaalu nafsi mooy yëngatu bakkan bi inda shuuri a ba mu yëgee bi ma xafiyee ci ne xam ne nëbb na sababu sababu mm-hmm. moo tax yéemu yàlla du ko def ndax yàlla dara nëbbuut ko yow yaa yéemu parce que affaire bi lu ko waral moo lay moo lay yéem mm-hmm. dangay gis dara xamoo lu ko waral nga yéemu mais mën naa am ba yegg ci li ko war a sa doo yéemu xam nga avion kimtaan la mm. lu tax yéematuñ ñu ah dañu xam ne gars yi ñoo boole ay rek mu naaw nii ci kaw mm. waaye benn waaye tax woon ne yi gars yi commencé téye seen gémme yi mm-hmm. waaye kii nu mu ba mën a naaw fekk yow la mu def ba mën a naaw bis boo ko xamoon naaw dootu la jaaxal si mm-hmm. nit lu xam du ko jaaxal mm-hmm. waaw léegi-léegi nag foofu nu mu tudd nitu njabarkat yi wala wala naxaatikat yi léeg-léeg dañuy def yu mel noonu xam nga foo fekk ku yàlla may kimtaan nga ne yaa ngi wane sa kimtaan ci biir nit ñi pour ñu yéem la ñaareel ñaareel li ci ëpp waxuma yëpp nag li ci ëpp da ngaa bëgg rek loolu du kimtaan loolu du kimtaan mën naa dem ci benn noonu mu mu maa woon benn kimtaan di ma nax dem jël benn nu bool jël benn dix mille xam nga bool boo ko ubbee palaat bi nii nga tooyal palaat bi boo si collé dix mille day collé wu boo jëlee gannaaw palaat bi xam nga ma wax te palaat bi nii gannaaw gi nii boo ko ubbee ci bool bi nii léegi moom day dem làqatu jël palaat bi tooyal ko ba mu tooy mu taf ci dix mille jël bool bi def ci ndox ñëw ub ko bu wé bol bi ñëw yëkëti palaat bi sig né ma xolal gis nga fi xaaliss mëna ne mëna mo mëna ñaan yalla ba xaaliss gën fekk mom xaaliss mu bëgg mu gën mu ngi ko taf ci gannaaw palaat bi say say bu défé té kurusam di lak baat yu ko neex baat yu ko neex rek nu baat bi gëna ñangé rek mu wax pour nga gëna pour nga gëna tiit né waa jambar di dóor ba palaat bi tëf. Mhm. làkk-làkkam yi dóor xam nga booy dóor xaalis bi lay wadd si di yëngal boo yëngal ndox mi di ko laal ngay dóor xaalis foofu mu wadd si biir. Mhm. dóor ba si kanam mu siggi waaye gis nga waaw garaaw de ngay xam def na kiimaan yee fekk dafay fen rek. defut mhm. na sa xelam bopp mi nag parfois mën naa ñàkk xam nu mu def mm, booy daan nañ ma ko def fii ci. daanañ ko def ci daara ji comme ni ñuy def fàtt naa action bi mais daal fee nañuy toog te lii xew fii ñoom dañ koy xam ba léegi man loolu jëlee gu mu ko sax comme ñu ko defee woon noonu yaa ngi xam ne ko defee woon it moom daal fee nañuy toog daal am na luy xew daal loo xam ne man sax ba léegi xamaguma lii nu ko gaa yi defee dalay yéem da nga yaakaar ne lii la fekk du kiimaan yu bëri yu niru kiimaan mhm. noonu lay demee borom kiimaan du feeñal kii maanaam lu mooy ba mu sësee su ko defee loolu eh, taajub gi moo ko andi woon wàllu yéemu nag arab dafa am nu ko tëggee waloo ñeen na ko siixataani ñaari tëgg benn mooy ma afaaluhu ak afil bihi ñaari rek lañ ci defal buntu ci langue arab siixatu taajub am na façon yu wuutee ci arab mais ma afaaluhu ak afil moo ci gën a fës naxoo ma axsana lu gën a rafet asidq dëgg mm-hmm. cosaan li mooy ma أي شيء عظيم بير ممج أحسن عرفة لنا الصدق دق ما أحسن الصدق مي لمج مو عرفة الدق جسال لي مي شيء عظيم أحسن الصدق وطا ما جي نكرة الموصوف له هم وأحسن rafetalal bii ci moom maanaam wa ahsin yéemal ak taaru bii ci moom mhm. ahsin bii mhm. baat bu la neex da nga jël ko tëgg ko afil bii mhm. mooy yéemal ak taaru foofu cosaan li mooy xasuna rafet na zeyd dégg soo ko defee ñu teg ko ñi bëgg ci mm, ak yéemu ñu tëgg ko afil baa gi ñu ci faayil gi mooy ahsin bi zeyd baa gi dañoo jël affaire bi def ko siixatu fexlu amr pour jublu si taajub mais ci saali xasuna zeyd rek la zeyd rafet la ñu def ko siixatu fexlu amr mooy ahsin bi zeydin yéemal taaru zeyd waxaataani siixataani ñaari tëggin yi xumaa ñoom ñaar al mu bawoob ñoom lañ defal buntu la xumaa ñeen la ñoom ñaar fii kutubil arabiya ci téere arab ñaar yi rek ñooy jàngale tëgginu yéemu mhm. ci téere arab wayen kaana di la nekk na seexu ay tëgginam kasiratan di lu bëri mhm. tëggin nag bëri na min zaalika bokk na si loolu xawlu taala wax yàlla ji kawe jum naan mhm. kayfa kaw teef takfuruuna ngeen wedde billaahi ci yàlla kaw teef nag ngeen wedde kayfa takfuruuna foofu yéemu la kayfa tafaalu bi haza wa nangam nangam nag ngay defee lii ci nangam ak xew na kooku yéemu la yéemu ci nu mu mën a defee lii hmm. wa kuntum te nekkoon ngeen am waatan di way dee fa axyaakum mu dundal leen hmm. ñëpp dañoo dee woon ndax ñëpp ay toq mën la ñëwoon hmm. yàlla leen dundal ba pare yafal leen màgg weddi ko man weddi yàlla laa xamul nu mu mën a nekkee xanaa weddi yàlla moom dangay réew rek nga ne yàlla amut waaw waaye yow xam nga ne yàlla am na waaw mais nag bu la sa réewaa nga bu yeggee foofu nga ne yàlla xam ne lu la neex ñuy wax mais yow nga gis asamaan nga gis suuf gis mbindeef yëpp te kenn bindu dara te dara mënul bind boppam te liy xewit gis nga kenn mënu ci dara da ngay xool rek xëy mu xew nga ne yàlla amul da ngaa réew rek waaye xam nga ne yàlla am na boo ne àllaaxira amul dekki amul it kooku xeeru maaqul xelawut ndax koo xam ne démb nekkoo fi nga xëy xëy ñu bind la bind bu yéeme bind boo xam ne yow ba léegi sa comprendre wu lii la. Mm. dafa la nopp bët lu ne. Mm. Ah te doo fi sax. Mm. bind boobu ak lu yéeme lii xam nga ne ki ko def deful ko ngir caaxaan. su fekkee ne dangay ngay dee rek jeex na. ak day caaxaan. am mm-hmm. eh, na njëriñu bind bi xam nga ne ci la bind. Mm-hmm. am na lu tax mu bind la te comme que nanguwul nga sax fi. loolu mooy wane am na fu mu la bëgg a yóbbu suba moo tax weddi yàlla wala weddi ab yonent wala weddi dekk réew rek mooy jàpp nit ba mu def ko waaye xamu fu mu ko teg réew rek mën nga réew na ne gëm nga waaye gëm nga ndax loolu kenn mënu ko weddi yàlla incha allah musal wa qawlu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak mucc subhanallah إن المؤمن لا ين... لا ينجس حيا ولا ميتا من لا ينجس ولف يونتو أن سبحان الله باتو يمولا لا نيد يمو شي دارا سبحان الله إن المؤمن نك جوليت لا ينجس دو نك سوب حيا بو دون ولا ميتا دو جاغن بو دي بو بابو هوريك لا يونتي سوخلا فك مو يري جنابا موم بور موم yore jenaaw fa di tok ci kanam yonent bi lolou jaador yonent bi laaj ko lutax mu yeex ñu mu wax ko yonent ne ko subhanallah jullit buy dund buy dee kon même moom mu ngi amee janaaba sax mais mën naa toog ci xadara yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom muy sobe wa qawlum ak seeni wax ñoom arab ne lillaahi darruhu lillaahi kimtaañeel na yàlla darruhu mbaaxam faarisan muy aji jàmbaar faarisan kooku tamise la ci taajub bi waaw lillaahi darru fulaan nangam lillaahi darruhu baatu kéemtaan la laa ñeen yàlla darruhu daru dana fi jox ak soow soow mooy yart lu bëri mais dafa bëgg wax ne yéemu nañ ci waajee rek ci lim jàmbaar yi wa xawloo xam yaa jaarataa ma anti jaara yaa jaarataa eyo suma dëkkandoor bi maa anti jaara ban façon dëkkandoor nga loolu façon yéemu la hmm? yaa jaaratun rek la waaye dañ ko def lu ñuy wax tuddee nat ba waaw mel ni kuy métti lu yokk ci alifu nat ba yaa jaarataa mais mun a daara la lu ñu wax maa anti jaar kii façon dëkk façon kii yëmu la hmm. waas lu ahsin bi zeydi cosaanu ahsin bi zeydi hmm. hmm? mooy ahsana rafet na zeydun ay saara mujj na za xusnin di borom ak taar su ma urée dañu bëgg a temps jubu yéemu minus nii ci taaram fa xuwi lañu changé ko ila surati seexati amri تيمر وصيغة أمره وزيد يوكر بابا في فاعل تفاعل لتحسين اللفظ غير في بعد أحسن بزيد و موجود يسي أحسن رفضنا رفضنا هم أحسن بزيد ما أنا بمير ما زيد رفضنا بوكو جيلي تي تشانو احسن نك احسن مم رفتن لي في مولا ما انا بمو جوغي تي حسن رفتن waaye bañ ci bëggee eh, taajub dañ ko yóbbu ci ahsin daf ko feel amru ahsana hmm. mais na muñ ci rafetalal nag mais lañ ci na mu mooy rafet na hmm. mais maanaam moom maanaam xasuna rafet na la yore mais boo xoolee ahsin ci baatu ahsana la mën jugee hmm. kon lafz bi moo jugee ci ahsana waaye maanaam bi ci xasuna la mën jugee ñu changé ko def ko suuratu siixatu amr mais loolu tëgg ni siixatul amr ñu yokk baa ca faayil ba ca zayd pour rafetal ko rek ndax baa moom yàgg nañ ko yokk ci faayil wa kafa billahi shahidan wa kafa llaahu rek wama wa amma ma afalu waaye baatu ma afalu fa inna naka ma nakiratun gu mat la maanaam nakiratun taamma mooy nakira boo xam ne ko am nañu ko defee nakiratun شيء أحسن صدقة وبانك رجلا ما شيء عظيم وأفعل أفعل فعل معدي فعل معدي بدليل لحاق النون الوقاية تكثر دقم النون الوقاية في نحو ما أحوجني لن مو مغنى سخر إلى عفي لا جمس جيغل جيغل ما أحوجني كوك النون الوقاية مو دقسي أحوجك كان أفعل فعل معدي parce que fi'lu maadi mooy am noonu wiqaaya bu doon ismu doo am noonu wiqaaya hmm? dégg nga dégg nga su ko defee noonu la asaani ñaaw isa arata boo bëggee a taf di la gën a le awi taajub wala yéemu mi maa ci ne xam ne mes taw fi matul assur sart yi ñu waxoon si taf di le moo nekk si taajub rek مما سيخ لم يستوفوا مثل لم يستوفوا مثل الشرور رساتي فاتي أنيل بسيقة تتقن مستوفي بأي مثل لا أني رساتي وجعل نعرف المصدر مصدر غير المستوفي بوخان مثل تمييز مريد تمييز اسم تفضيل يا اسم تفضيل بوبغي غنري ولا تعجب رساتي مثل دغي اندي بات بو خامني ساتي متنا nga xol bi nga bëggoon def fin le temps jup te saatu yu matul nga jël masdaram متميزا لاسم التفضيل لاسم التفضيل ومعمولا تلويل جف لفعل تعجب من الفعل تعجب بدا فعل تعجب لهم هناك مفعول بمعنى خمغا استخرج ساكنا جن كوكو دو سلاسي تيز متفضيل سلاسي لا لك بو بو بو ديف استخرج اسم تفضيل نا ديف انا فلان ديو ميجل بات بو خامني ساتي تخني اسم تفضيل لا ديف كوم comme shadda nga ne ashaddu moo gën a tat istixraajan ci génne lil fawaayid ñeel njariñ istixraajal fawaayid génne na njariñ nga bëgg wax ne kii moo gën a dàq génne njariñ danaan furaan ashaddu istixraajan lil fawaayid istixraaj dafa nekk tamyiz ci ashaddu léegi hmm? wala asrahu istixraajan lil fawaayid moo gën a gaaw a mën a génn da ngay seet baat boo xam ne dëppoo naa li nga bëgg a wax hmm. du ashaddu rek ngay jël léegi bu fekkoon nag afa fin temps jum nga ko bëgg a def fin temps jum moom du am tamit bu waaye fin maamul ma fonoo lay mhm. comme maa ashadda lu gën a ak génneem mhm. wala lu gën a yomb istixraaju maa akrama lu gën a teel istixraaju mhm. que istixraaj nga ne mën na jàll mën naa bon sax wala nga ne wa ashdid bi istixraajihi yéemal génneen gu tat gi mu génne wa asri bi istixraaj yi wa asil bi istixraaj yi wa aqbix bi istixraaj yi yaa ngi dégg hmm. su ko defee da ngay jël fenn bu ko mën nga nga dugal ko foofu in hmm. uriidu al islaam mastata'tu wa ma tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh